أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mi ngi ànd ak yéen ba tey ci kitaabu tawxid ba tey rek ñu toll ci baabu ma jaa min altaxliisi fi man abada allaha inda qabru rajulin salih ñu toll tey fi ñuy jëlee masail yi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li tax mu tere ñu jàpp jàkkaam wala bàmmeelam bi def ko place barab bu ñuy jaamoo bañ jullit yi dugg ci musiba bi leen dal tey bañoon jullit yi dugg ci li leen dal tey moo tax yonent bi avertir leen woon bu yàgg pour ñu mën a moytandiku tabax jàkka joo xam ne jàkka ji dañ fay jaam waa ju baax joo xam ne bàmmeelam ci biir jàkka ji la nekk mu ne walaw saxat niyatul faili donte ne sax kii dem ci jàkka ji di jaamu yéene moom ci boppam mooy jaamu wa ki ñu suul ci jàkka ji yàlla laay jaamu donte ne sax sa yéene bi yaa ngi koy wéral dafa jara mooy tandiku parce que li muy indi mooy toppandoo gi tey xam ngeen ne tey fii nu toll ci àddina bi mooy li ëpp ci nit ñi li ëpp ci nit ñi ku baax su deewee fu ñu koy suul ci jàkk lu ko waral mooy jàpp ne jàkka barab bu sell la barab bu baax la sunu waa ji waayu yàlla la jàkka néegu yàlla la kon nan ko suul foofu su ko defee nit ñi di commencé ku ñëw julli si raay ku ñëw julli si sukk ku ñëw julli si toroxlu mu jural nit ñi nag léegi bokkaale moo tax yonent bi diñu ko tere diñu ko moytandikuloo mu ne wa minha bokk na ci ba tey li tax yonent bi tere ko an nahyu ani tamasil bi taxlisil amr yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere na ko tere estati yi ci tere bu tar lu ëpp ci doomu aadama yi nga xam ne dañuy raay photo wala ñuy raay estati wala ñuy jaamu bàmmeel li ëpp ci ñu koy def koo ci laaj lu tax nga def li lu mu lay wax damay barkeelu damay barkeelu la lay wax loolu moo tax ñu tere ko te terewuñ ko sax tere bu bu sedd wala bu yem déedéet yonent daf ko tere tere bu tar pour nit ñi war a moytandiku defar ay instati seen kër yi moo tax ñu ne la lépp lu am ruu bul ko teg ci sa kaw armoire lépp lu am ruu bu fekkee da nga bëgg ay instati yuy rafetal sa armoire sax wala sa bibliothèque ñu ne la utal garab lu mel ne garab dessin bu am garab wala fleur wala wala wala même bu dee sijaada yenn saa yi nga gis sijaada boo xam ne dañ koy def ci saal bi fexeel ba lu am ruu bu mu ci nekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na benn jour di ziyaare ji Aïcha war a dugg néegam mu fekk Aïcha ñu ngi ko jox kado benn darab mu dagg ko ci digg bi mu def lenn li rideau yeneen bi mu ñëwee jib rideau bi mu gis dessin nekk ci bu am ru yonent bi dafa dëpp duggul dafa dëpp sallallahu alayhi wa sallam rawatina nag bu fekkoon ne dañ kaa def ci biir néeg bi kon jullit yi nañ moytandiku loolu tar gu tar la ko yonent bi tere mu ne wa minha bokk na ci nahyuhu an fiilihi inda qabrihi qabla an yujad al qabr allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tere na mbir moomu tere bàmmeel bu ñuy raay ak di ko fóon tere na ko moom yonent bi balaa muy nekk ci bàmmeel kañ la yonent bi tere ñu raay bàmmeel kañ la ko tere balaa moo faatu avant moom muy faatu mi ngi dund mi ngi mi ngi ci feebar di waajal alaxira muy mettre en garde jullit yi di leen moytandikuloo raay bàmmeel ak fóon bàmmeel ak julli ci bàmmeel boobu moo yonent bi mi ngi dund avant bàmmeelam bi tey di am la ko tere woon mu ne wa minha bokk na ci ba tey annahu sallallahu alayhi wa sallam wala annahu naka mbir moomu ñuy def min sunanil yahud wan nasara fi quburi anbiyaihim loolu dafa bokk ci li yahud yi ak nasaraan yi di def tey ci seeni bàmmeelu yonent mooy lan ziyaare fóon raay nangam ak nangam ak nangam kon jullit yi nañu xam ne ku bëgg jaamu yàlla yàlla subhanahu wa taala moo la sant jaamu waaye sant la ko nag ci nga dem di ko def ci ay bàmmeel waxoon naa fi keroog ne dafa am place yoo xam ne dañuy tere ku fa julli bàmmeel ci la bokk ay bàmmeel fu ñu suul nit kenn du fa julli moo tax ngeen jàng ci lislaam barab yi gën a bëri bu ñëwee di fa def jàkka dañuy xool bu fekkee ne suul nañ fa ay nit ñu ñu sulli leen suul leen ci yeneen barab kon dañu bàyyi xel bu baax ne fu nu suul nit kenn du fa jaamu yàlla fu ñu suul nit kenn du ko raay fu nu suul nit kenn du fa toroxlu kenn du fa tawaaf kenn du fa màggal yàlla subhanahu wa taala parce que soo ko defee rek bokkaale nga mu ne bokk na ci ba tey wa minha laanahu iyahum ala dalik rëbb ñaan gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal ñi koy def ne yal na leen yàlla rëbb yonent bi ngeen defe ne dina rëbb nit kooku texe yonent bi dina rëbb nit ki mu rëbb am tiyaaba nga sol sa dàll ne maa ngi uti tiyaaba ci mbir moo xam ne yonent bi da ne ku ko def yal na la yàlla rëbb est ce que di nga am tiyaaba mbokk yi ku yàlla rëbb doo am tiyaaba kon nanu góorgóorlu ba sunu uti tiyaaba ñu uti ko ci ñi ko yonent bi jàngalee ñu moytandiku uti tiyaaba ci yonent bi lu mu wax ne ku ko def yal na la yàlla rëbb mu ne wa minha bokk na ci ba tey أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره dana yonent bi nammam ci rëbb gi mu rëbb ñii mooy mooy tandikuloo ñu ñun ñii balaa ñu koy def ci bàmmeelam tey su gouvernement saoudi jëlul woon ay ndigal ay mbir di garder bàmmeelu yonent bi kon lu ngeen di gis bon danañ xàppati karo yi danañ tibb suuf si danañ gas xeer yi wallahi di nga gis gis ku la ne lii yeelu yonent bi la maa ko barke dama ko yóbbu sama kër di nga ko gis su fekkee ne nit ordinaire yi nañuy njëkkante seen kawar dañuy njëkkante lenn ci ñoom seen yére seen seen seen di ko bëgg a lekk waxuma laak nag yonent bi ndax même bu dee nit ki day bokkaale sax bëgg na yonent bi waxuma laak nag ko am tawxiid jullit boo laal danaan la man yonent bi laay nooyee kon suñu libéré woon nit ñi ne leen mu ngi nii lu ngeen di gis loolu moo tax gis nga yàlla subhanahu wa taala nangu ñaanam moom yonent bi da ngeen leen di tas ku ne ngeen teg ko ci ruq mu toog ku nekk day jël kenn dend ak moom mu ne yàlla subhanahu wa taala dafa nangu ñaanu yonent li yonent bi ñaanoon ne bàmmeelam yàlla bu ko yàlla def barab bu ñuy jaamu loolu la ko yàlla nangul mooy tey yàlla def bàmmeel bi am sécurité kenn du jublu kenn du julli di ci jublu kenn du tàllal loxo ci bàmmeel bi di ñaan ndeysaan am na benn góor xëy na jaawara xam na ko góor gi sant ndaw dëkk aslem las palmas nee na dafa aji bi mu demee mu jëm ci bàmmeelu yonent bi mu yegg si rek jubal rek yëkkati loxo yi tàllal mu ne ñu ne ko liif fir ci ginnaaw mu gees ñu ne ko xaraam mu ne xaraam Sénégal ñu koy def nga ne xaraam nee na affaire boobu nag tere ko nelaw pourquoi ñu tere ko tàllal loxoom ci bàmmeelu yonent bi mu fay ñaan nee na bi mu gëstoo ki ko dóor liif bi da ko ne xaraam waaye xam nga mu ne lan laa ci jële mooy liif boobu liifu tawxiid la ndeke sirk bi nekkoon ca man la doon génne liifu tawxiid mu ne sama liifu tawxiid bi duma ko fàtte mu ne falaa jóge pare ci bàmmeel yépp dootuma ñaan benn bàmmeel yàlla laay ñaan sama borom falaa jógee bàyyi bépp bidaa bépp shirk nekk mu waxit da koy wax ba léegi sa waaye mu ne sama liifu tawxiid bi duma ko fàtte liifu tawxiid la ko tuddee ndax nee na liif boobu bu ñu ko ko dóoree mu gestu xool ñu ne ko xaraam mu ne ci laa génn ci mbir waa Sénégal yëpp ba mu set nga xam ne ñii liñ ma wax dëgg la waaw ndax diina ji fa la juddoo woon fa la jógee woon kon duñ ma wax lu dul dëgg te dëgg lañ ko wax kenn du ñaan di tàllal sa loxo ci ay bàmmeel mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam tere nañu loolu lu tax tahziruhu iyaana ñun ñii la doon mooy tandikuloo balaa ñu koy def ci bàmmeelam mu ne ba tey annaha hiya al illa fi adami ibrasihi nee na looloo tax ba tey loolu illa la goo xam ne moo tax bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn feeñalu ko kenn fësalu ko tey jii bu ñu bàyyi woon gars yi li ñuy def fii dañuy gis ñuy photo bàmmeelu yonent bi di ko jaay commencé woon nañu ko def fii sax def ay dessin benn bàmmeel bu rafet def ci ay sondel commencé di ko jaay nit ñi wala fii lu nekk lañ fi commencé woon dem dem gis ngeen fi sax photo jibril ak ay photo malaaka ñu yor ay bolde ñu bind ci photo yi ay nama rabbuka ñu def ay jigéen ñu def yaramu neen malaaka yi subhanallah ñu ne ñi ay malaaka lañ dañ leen di mbugal commencé nañ ko fii di ko dessiné di ko jaay xëy na kay xale yu ndaw yi ñoo ko fekkool waaye fii am na ñoo xam ne seen bët jot naa tegu ci photo yooyu waaw kan ma leen ne jibril noonu la mel ki ki dessiné jibril wala mu photo ko ba koy jaay fu mu gisee jibril fan ban place fan man gis naa photo jibril lu bëri fii ñu dessiné jibril as waroo ma wax sax photo jibril damaa war a wax ne gis naa fi ay dessin yu bëri ñu ne jibril la am na sax benn mu ngi gis mu yor benn xaw ma jàkka gis naa ko fële mu yor bolde génn ay laaf naaw gis loolu loolu ci lan la bokk yow ku la ne kii jibril la yonent bi bi mu gisee jibril dafa xam wala dafa xam yow mi ko gis dessiné ko foo ko gisee yooyu ay mbir la yoo xam ne moo tax man leen tey bu yàlla deful woon ñii ñu aar bàmmeelu yonent bi kon lu ngeen di gis kon di nga gis ku ku ñëw toog ci kaw bàmmeel bi na foto leen ma na foto ko mu ñëw naan gis nga bi ma ajee ci bàmmeelu yonent bi laa tëdd ñu foto ma waaye ña fa nekk yàlla dimbali na leen ba nga xam ne dañuy aar tawxiid même kaaba gi sax nga dugg ci di filmer nii nii naan nii da ngay jékki-jékki ku la ne salaamaaleykum haza al makaan makaanul xushuu fii place toroxlu la ittaqillah ragalal yàlla nga lem sa portable dugal sa biir poos billaahi wallaahi taala tey gis ku ñëw ba ci sa mag ne la fii du pour lii lii chaque jour nga gis ko ci télé bi doy na li nga koy gis ci télé bi doy na soo bëggee film bi demal ci internet nga tiire ko mais fii boo fi ñëwee profitool jaamu yàlla bul taxaw fii di filmer dañ lay wax bu dee photo nga yor nag yu ngand yi wala caméra moom dañ koy nangu dindi kii bi pellicule bi wala ñu yóbbu la waaw gis naa fa benn imam boo xam ne portable yi mag la yor dafa def taraf flash bi dem rek ñu ne ko siix di ko yóbbu gars yi jàpp ci te imam la fii Sénégal gars yi jàpp ci gars yi jàpp ci bañ delloo ko portable bi ne ko bu mu ñaar mu jéggulu ñu baal ko gis nga kon diine ji dañ ko war a aar mais diine bu fekkee duñ ko aar ku nekk da ngay ñëw def lu la neex tey bu ñu libéré woon bàmmeelu yonent bi ñu ne mu ngoog kon du baax de bilaa di nga gis gars yi xàppati birig yi xàppati poto yi karo yi di nga gis koo xam ne njaganaayam karo bi da ko ci dugal di ci tëdd mais alhamdulillah ba yàlla tey defee yooyu yëpp comme yonent bi ñaanoon na ko yàlla subhanahu wa taala nangul ko ko ba bàmmeelam nekkul bàmmeel bu ñuy jaamu bàmmeel yi ñuy jaamu de bàmmeelu yonent bi bokku ci mu ne suñ demee ci xadisu muslim danañ fa fekk an jundab ibnu abdallahi qaal سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني فإني أنهاكم عن ذلك بقي ki yàlla yónni woon ci ñun nee na sahaaba bu mag bu tudd jundab ibnu abdallah ibnu sufyan albajali wa yunsabu ila jaddihi moom sahaaba bi dañ koy askanale dañ koy dàkkantalee maamam sahaabiyun mashhur sahaaba bu siiw la woon maata baada sittiin ma nga dee ca atum juróom benn fukki at ya moo ñu doon nettali hadis bi nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inni man yonent bi abra u deñ naa damay deñ ba set wicc lan mooy deñ simmeeku ilallahi jëm ca yàlla an yakuna lii minkum mu ñeel ma ci yéen kenn ci yéen lan la yonent bi di simmiiku lan la yonent bi di deñ muy am tanaa terewu na amma laa ya juusi ci loo xam ne du yell moom yonent bi mu koy def amma ya amma laa ya juusu lii loo xam ne yellul ci man yonent bi ma koy def an afalahu gis nga dafa mbir yoo xam ne yellul ci man man yonent ma koy def loolu la yonent bi di simmeeku ñu ne lan la yonent bi di simmeeku mooy mu am xarit kenn ci saxaaba yi mu mu mu def lan mbirum gën gënale jàpp ñi jegeel boppam soril ñii def ñi ay conseil particulier ñee mu def leen ay yonent bi ne ne yàlla na ma yàlla musal ba may am loolu ci samay saxaaba sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñëpp ay mbokkam lañ ñëpp bañ na ko ba doonoon wax gaa yi kenn ci yéen bu mu ñëw di ma nettali lu diw def lu benn mbokkam def bu ma ko kenn nettali fekkewu ma ko yëguma ko ma ko kenn wax waaw ndeysaan lu tax mu ne damaa bëgg dund ci seen biir sama xol set ëllëg yowmal qiyaam bu ma dajeeg yéen sama xol set loolu mooy lan saa yu ñu la waxee diw def na dara soo ko gisee sa xel ci lu muy dem ah ci lu mu defoon moo tax mu ne maa ngi deñ simmeeku an yakuna lii minkum xalil ma am ci yéen benn xarit fa inna allaha qad ittaxazani xalilan man de yàlla ma jàpp may xaritam kama taxasa ibrahima xalilan comme ni yàlla jàppe woon ibrahima mu nekk xalit xaritam mu ne walaw kuntu man de su ma nekkoon muttaxisan min ummati xalilan sama xeet wi ma ci ut xarit soppe la taxastu ababakarin xalila kon ma jël ababakar mu nekk sama xarit ndeysaan waaw ma ni yonent bi bu jëloon ababakar mu nekk xaritam est ce que day tooñ est ce que kon li mu def jaaduwul ah kay kañ la yonent bi ànd ak abubakar li ko ñëpp weddee lu tax mu yoon mu tuddee abubakar sadiq ah moo dëggoon bi ñëpp weddee abubakar bi ñëpp weddee moo joxe woon moo moo gëmoon bi ñëpp bañee joxe moo joxe woon alalam wala moom la njëkk a ndulli ci lislaam dóor ko bu mu xam ci kaara lañ ko teg keroog di ko delloo këram ba pare mu nekk goro ci yonent bi kooku warul nekk xaritam yonent bi denc doomam muy gàddaay ànd ak moom ba yàlla di ko wax ci alquran saanis nayni is huma fil xaar kon kay kooku bu ko yonent bi ne woon sama xarit nga waaye xoolal loolu yépp yonent bi ne yàlla moo ma tere ma ut ci yéen xarit lu tax lu tax jéng lay bañ sallallahu alayhi wa sallam bañ a jéng ba bañ a am xarit ñépp yem ci yow tout le monde ñépp a yem allahu akbar mu ne yenent bi alayhi salaatu wasalaam ne law kuntu su ma nekkoon muttaxisan may ut min ummati su ma ko doon ut min ummati ci sama xeet wii su ma ko doon ut kon dey la taxastu aba bakrin xalilan dinaa jël aba bakr mu nekk sama xarit waaye ala ma ne dama ne wa inna man kaana qablakum kaanu yattaxisuna qubura ambiyaihim masajid gaa yi leen fi jiitu woon démb dañ daan jàpp seeni bàmmeeli yonent def ko ay jàkk ala dama ne ah fala tattaxisu bu leen jàpp al qubura bàmmeeli masajidan def koy jàkk ala dama ne fala tattaxisu bu leen jàpp lii da waa yoof dégguñu ko mardi laa gëj yoof mardi tey la lan mardi comme tey laa gëj yoof sunu benn way jur faatu ñu ko doon rob waaye boo demee yoof nga gis tabax yi nga gis étage yi nga gis armeel yi ñu defar jàkk yenn saa yi sax nga gis armeel boo xam ne étage lañ ko def def ci karo marbre def ci ay fleur ba pare daal ci bind ici reposer monsieur wala madame ici reposer kan moo leen ne dafa reposer yeneen bi nee na jàkk bu ñu ko tabaxee wala ñu def ci laso yërmande yàlla dootu ci wàccati waaw jàkk bàmmeel bàmmeel buñ ko buñ ko tabaxee def ci ay karo lasa ko yërmande yàlla dootu ci wàccati bàmmeel yërmande yàlla dootu ci wàccati bàmmeel kenn du ko tabax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na bàmmeel ñaar rek la imma rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufarin naar bàmmeel boo gis ci àdduna ñaar yi rek la boroom a ngi safara wala mi ngi aljana bàmmeel boo gis nag amul beneen amul troisième bàmmeel bu dee waa ji mi ngi àjjana àjjana ak bàmmeel bu ñu ra- bu ñu tabax bu rax bu dee waa jaa ngi safara bàmmeel bi lu mu koy jëriñ taaru bàmmeel bi kon bàmmeel bi jarul tabax hmm? ñu bari dañ naan non il faut ñu tabax ko parce que dañuy feddali kóllëre sunu papa la sunu sunu sunu yenn saa nga gis ñuy tiitaroo bàmmeel bu ñu def milliard bàmmeel bi un milliard lañ ko tabaxee fekk boobu miskin yaa ngi nii xiif ak a neexoon ñu jox ko miskin yi ki dee dee na milliard bi lu mu koy jëriñ karo yi karo yi ki dee bu ñu defee ci bàmmeel bi karo karo yu tàkk guddi bu courant coupé karo yi di tàkk lu muy jëriñ ki dee gi bu ñu sàngee ci bàmmeel bi soie lu mu koy jëriñ moom mu dee hmm? buñ ci taalee ay sondelu buñ ci taalee ay cuuraay yu cuuraay bi du ko xeeñ moom ko dee cuuraay du ko xeeñ puisque nekkatul foofu ay yax ñoo fa nekk yax yu nëb yu funax yooyu yooyu ñu def ci kaw yëpp eggul ci ku dee wala ku dee gi xam nga lan lan moo yegg ci moom suuf suuf la njaganaayoo suuf moo ko wër ndeyjoor ak càmmoñ suuf moo fees biir bi suuf moo dugg ci bakkan yi waaw tegu ci kawam yonent bi nee na nit doo dégg xadis bi yonent bi nee na nit du suur mukk lu dul ñaar lu suur mukk alal xam nga doomu aadama lan moo koy suur suuf bu bu nit faatoo ñu dugal ko ci bàmmeel bi tey mardi mercredi jeudi nga ñëw da ngay fekk bàmmeel bi wàcc dafa màbb xam nga lu tax bàmmeel bi ma ma màbb ku ko xam ah yaram benn nëpp suuf si wàcc tëj suuf si toj ko biir bi explosé suuf si dugg ci ba fees bët yi luqateeku suuf si dugg ci gi bakkan bi dañ suuf si dugg ci gémmiñ gi ubbeeku suuf si dugg ci nopp yi suuf si dugg ci wala yonent bi nee na nit suuf rek moo koy suur leneen du la suur lu dul suuf sa léppay toj suuf si na ci bëm fatt ko léegi nag kooku nga def cuuraay ci kaw cuuraay ci kaw wala nga sotti ci parfum wala nga taal ci sondeel wala lampe wala nga def ci karo loolu koy yàq la rek billaahi wallahi wa taalaahi li ñu tabax li ñu tabax yoof defaroon na ay kër defaroon na cité ciment ba fa nekk ciment bi nekk yoof ak karo yi ak biri yi tabaxoon na ay cité yu ay miskin amul fu ñu dëkk da nga fay dem gis bàmmeel boo xam nii la toll comme jumaa ji benn nit tëdd ci biir punkalu bam punk 18 mètres 50 mètres ñu suul fa benn waay tabax ko tabax bu rafet lal ci biir ay sijaada nag ñu ne gars yi ba ñu ñëwee di ziar dañuy ubbi toog nga gis nit ñi ubbi toog commencé di di ñaan jàkkaarloo bàmmeel bi nag sukk sukk nag ana yàlla yooyu yëpp moo tax yonent bi tere ko baaxul day yóbbu nit ci bokkaale bàmmeel bi bu fekkee waa ji mi ngi aljanna mi ngi xéewlu mi ngi ci bànneex yooyu xanaa duñ ma ne cuuraay yi Dakar yi wala cuuraay yi àddina bi moo gën a neex cuuraay yi aljanna wala fleur yi ak fleur aljanna lu gën a neex lu gën a rafet waa ji mujjee dugg àjjana malaaka jàpp ci loxo bi di ko yóbbu mu dem dem ba ci ak rek mu sujjóot malaaka bi ne ko lan la mu ne damaa gis yàlla mu ne anama mu ne mu ngi nii mu ne ko lii fleur la lii fleur la du yàlla lii fleur la kon kay fleur yooyu kenn du ko dëkkale fleur yi moo tax yonent bi ne bàmmeel imma rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufari naar kon jarul tabax nga xoolal nit ñi fuñ ci tollu tey ku dee mu ne ku fi sa papa dee wala sa maam dee wala sa ndara dee li ñuy njëkk a xalaat mooy jël tableau samp ko ci bopp bi bind ci turam Hmm? bind ci date de naissance bi ak jour bi mu faatoo wala suba ñu ñëw indi mool yi commencé rangale indi karo yi tabax sotti ko kiyaas ci kaw yooyu yëpp ay bidaa la soo demee bàmmeelu baxiya bi ñu suul saxaaba yi doo fa gis birig xanaa bu ñu suulee ba pare distance bi fii bi tàqale ñaari bàmmeel yi ñu samp fii benn birig ci bopp bi mooy wane kii fii lañ ko tàmbalee suul fii la yem bàmmeelam fii la yem lii samp fi benn birig samp fi benn birig noonu la bàmmeel yépp mel xoolal bàmmeel yi yonent bi doon suul ba instant bi ñu ciy suul li muy tekki mooy dañ koo tabaxut ñun bàmmeelu pikin yi mën nañ laa wax léegi kañ lañ ko fi samp wala fees na lu tax tabax yi daanaka boo indee néew doo am foo jaar ci kaw néew yi ngay dëgg pourquoi parce que amul fu nit ñi jaar ndax fees na imagineel bàmmeeli yonent bi doon suul ba tey jii fi may wax ak yéen boo demee ñu ngi fay suul ay nit pourquoi parce que xatul te bàmmeel yi rëyul noonu de mën nga ko wër nga dox ko mais lu tax ba léegi feesut benn dañ ko organiser nekkul ku ñëw suule nu la neex ba pare bàmmeel yi dafa am ay yoon da nga ciy da nga ciy jaar nii doo dëgg ci néew yi de deux mooy doo fa gis ay tableau doo fa gis ay tabax laa doo fa gis karo amu fa terrain nii la nii leen dafa nga fay gis ay pitax yuy lekk dugub ji loolu moo fa nekk mais amul leneen ak nit ñi ñëw di ziyaare taxaw di xool bàmmeel comme nit ñi dañoo alko waaw taxaw di yenn saa nga bëgg a gis ñu ne fii lañ suul Roqaya doomu yonent wala diw wala bàmmeelu Ousmane ibn Affan a ngi nii wala imaamu Malik nga gis ku bëgg a tibb ci suuf si waaw ku bëgg a tibb ci suuf si indi ko Sénégal sangoo ko léegi léegi sunu góor gi ñu nekkal ci biir dafa am benn jarbaatam bu gaañu woon barki démb mu demoon ci dëkk ba jaale ci nee na bi mu demee li mu fa fekk mooy ndaw si ki mujjee waxal comme ndaw si feebarul dafa ñëw jaar ci kii nuyu ko dem kër ga ñu tegal ko añ mu lekk ba pare dee ma ne kooku mu mujjee woon waxal bi ñu ko nee diw dee na kooku dafa tiit di crise léegi ñu ne crise boobu pour mu dañ foog ñu dem tibb ci armeelu ndaw si suuf ñu xóoyal ko sangu ko ndaw si nee na loolu lañ def loolu lañ def loolu da nga koy gis bu nit deewee mbalaan mi mbalaan mi maanaam bu papa deewee mbalaan mi mu bàyyi mbalaan mi mi ngi ko doon sàngee ñu xotti ci takkal doom yépp ñii seen loxo ñii seen baat bàmmeel ba nga gis ko tibb ci suuf si indi ci kër gi daan ne waaw bàmmeel ba am suuf nañ ci sang xale yi balaa ñu koy gelu wala yooyu kenn xamul Sénégal lu fi nekk kenn xamul ndax ñun ay jullit lañ xamuñu ñun ay yiifir lañ xamuñu kenn du wax sax bokkaalekat parce que ñun suñu diine dañoo lànk foog rek ñu bokkaale yàlla wala wala ñu foog foog ñu def ko te munoo wax yii may wax ni ba duñ ko def ku dekk dañuy jël yére yi fóot ko bu ñu ko fóotee nu ñu koy def. weer ko ci mbedd. weer ko ci mbedd mi ci suuf si.
kenn du ko weer ci kaw.
kenn du ko weer ci kaw.
suuf rek.
suuf rek boo waxee ñu ne la gis nga paanu ndox bu ñu jógee armée la teg paanu ndox ci buntu kër gi.
ñoraaw.
ku ñëw ñu ne raxasu leen bu ñu paree tuur ko ci buntu kër gi yooyu yooyu wan diine la yére ku dekki kenn du ko weer ci ligne kenn du ko weer ci miir bi. ci suuf si rek lañ koy taal da ngay gis lépp ñu daal di koy taalal ci suuf si loolu ban diine la loolu ban xadis la comme mbirum bàmmeel lii yonent bi duñu tere suñu diine daf ci aju moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñu ko tere mu ne yonent bi nee na alaa dama ne wa inna man kaana qablakum ñi leen fi jiitu woon kaanu yattaxizuuna qubuura anbiyaa'ihim masajid ñooñ de dañoo jàppoon seeni bàmmeelu yonent yi def ko ay jàkk alaa dama ne falaa tattaxizu bu leen jàpp al qubuura bàmmeeli masajidan di ko def ay jàkk fa inni man yonent bi fa inni man mi muhammad sallallahu alayhi wa sallam anhaakum an zalika maa ngi leen koy tere lii kay war na nu doy yonent bi bu nee maa ngi leen koy tere waaye mbokk yi li ñu yonent bi tere war nañ koo bàyyi mu ne bayaanun li leeral la an al xulla fawqa al mahabba hmm? nee na soppe nekk na ci kaw xarit قال ابن القيم رحمه الله وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة نينا لن سيرين بي نينا لن تي نيغا خامني دانيو اوبل دانيي جاب ني مبغيل موم مو غنا مات اك سوبي نينا فإن إبراهيم خليل ومحمد حبيب الله نينا نيوم ñaar ay soppe yalla lañ محمد اك إبراهيم ay soppe yalla lañ فمن جعلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة nee na bu ñuy xool mbirum soppi ak mbirum xarit danañ gis ne soppe nee na boobu dafa mat waaye loolu ñu naan xalil nag xassa la yàlla daf koy jagleel ay nit moo tax mu ne wattaxasa allahu ibrahima xalilan waxul xabiban moom baatu xulla moom la gën a lëngal ak baatu mahabba mu ne fa inna allaha naka yàlla qad ittaxasani xalilan man yàlla moo ma jàpp ma nekk xaritam ci baat bi mu wax ne law kuntu muttaxisan min ummati xalilan la taxastu aba bakr nee na loolu bayaanun anna siddiq afdalu sahaba su ma doon ut xarit abubakar laay def sama xarit nee na loolu day tekke ne sahaaba yi li ñuy bëri bëri abubakar moo leen gën te ngëneelam jaadu na ku njëkk a gëm ci mag ñi abubakar ah yenent bi bi mu feebaree mëntu la jiite kan la wax mu jiite abubakar kon yenn yi nga xam ne yonent bi mi ngi xool abubakar naan ko defal loolu muy tekki ànd la su ma doon tànn xarit abubakar mi lay tànn kon loolu muy tekki mooy am na lu ko yàlla may moo tax xadis ba ne ma wata atil ardu baada al anbiya xayrun min abi bakar kaw suuf ginnaaw yonent yi ku mel ne abubakar doxu fi loolu muy tekki mooy moo leen gën gis ngeen kon du hasard yonent bi génn àdduna saxaaba yi xam ne kon kii dëgg-dëgg am na bët bu ko yonent bi doon xoole ñu daal di koy fal si ay nag bu ñu jàppee ne loolu coup d'état la ñoom seen déggin la waaye saxaaba yi ñoom seen déggin mooy kii doyoon yonent bi ba yonent bi bi mu feebaree ne ko demal jiite ko kay su su jiitee julli nii dagan na kon loolu mooy wax bi mbokk yi wa fihi raddun nee na loolu tontu la ala rafida ci ñooñu naan rafida te mooy chia ak jahamiya wa man surra ahlul bay ahlul bidaay ak ñenn wa huma charru ahlul bidaay nee na ñooñu ñoo gën a bon ci niti bidaay ñaari xeet yi ñooñu naan rafida ak jahamiya wa axrajahum baadu salaf nee na génn na leen lenn ci ñoñu diine génn nañ leen lu tax ndax ñoom dañuy jaamu ay bàmmeel wa hum ubaadul qubuur dañuy jaamu ay bàmmeel wax naa leen semaine passée dama doon jàngal waa CM2 ci Umar ibn al-Khattab leçon bi mujj ci dundam mooy fi mu faatoo nu mu nan la faatoo benn waay buñ naan benn waay buñ naan
aw lu'lu abu lu'lu almajuusi moom moo rey Omar waaye abu lu'lu boobu bàmmeelam boo demee Iran dañ ko tabax jumaa ji toll na sunu jumaa ji bàmmeel bi boo gisee niñ ko orné ak ni ñuy jaamoo bàmmeel bi sa yaram day daw yow gis nga ko ci télé dama téléchargé bàmmeel bi internet ñoo di ko woon xale yi pour ñu teg ci seen bët ñu xam ne ñooñu du ñu ay jullit imaginez Omar ibnul Khattab ki ko rey ñuy jaamu sa bàmmeel ñu- yemuñ ci loolu dañ naan yàlla boo ñuy dekkil yàlla nag ñu dekkil ak abu lu'lu'a Allah ñuy wax ba pare ñu ne Omar ak Aboubacar ñooñu ay yéeféer lañ lu tax parce que pourquoi yonent bi jógee fi rek ñu dem fal Aboubacar gis nga xoolal fu ñooñu toll Omar ak Aboubacar bu ñu nekkee ay yéeféer ñun ay lan lañ kon ah ñoo xam ne yonent bi moo leen ne yéen da ngeen dugg aljana Omar ak Aboubacar ak Ousmane yonent bi moo leen seen aljana wala ñoom ci lan lañ bokk ci ashara al mubashirina bil janna abubakar mi yàlla junj ci alquran keroog muy ànd ak yonent bi gàddaay yonent bi ne ko yàlla ne allah tansuruhu faqad nasarahu llah is axrajahu alladina kafaru thani isnayni is huma fi lgaar is yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha maana man huwa saahibu rasul abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq ah kon dëgg-dëgg nga xam ne kon àdduna day na waar wallahi waaye yal na yàlla jubal saxal ñu ci njub yonent bi nee na bu ma doon ut xarit ci samay àndandoo yi Aboubacar laay ut xarit waaye yàlla moo ma tere loolu yàlla moo ma tere mu ut xarit waaw man jullit ñëpp samay mbokk nañ kon mbokk yi ci tomb boobu ci xadis boobu la ñuy yemale dars bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñu dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh
jazakallahu khayran amiin